foofu sa diwaan bu Thiès kenn nit moo ci ñàkk bakkanam ñett jëlee ci ay gaañu gaañu ginnaaw victoire boobe ñi nga xam ne nag ñoo ci jëlee ay gaañu gaañu ak sa ñàkk seen bakkan naka noonu mbiree na mu nga amee foofa ca centre ville bu Thiès ci route nationale numéro 1 ba ci ginnaaw ba yëf yi amee nag ci lañ daal di transporté ñi nga xam ne ñoo jëlee ay gaañu gaañu ci mbiree ak ki ñàkk bakkanam ca hôpital. Euh, alaaji Amadou Sakhir njegeen bu cees ñoom ñooñe ki nga xam ne moo ci ñàkk bakkanam ak ñi nga xam ne ñooy ñett ñi ci jëlee ay gaañu gaañu muy accident boo xam ne am na ca Thiès ni ki démb ci ginnaaw match Sénégal ak ñii di waa Égypte te Sénégal yi doon génn di ciblé benn jakarta benn scooter ak benn minicar ñu doon di daje kenn nit ñàkk ci bakkanam ñett jëlee ci ay gaañu gaañu.